tey dañu daje fii ci ci kilifa monsieur Alioune Ndoye ministre des pêches et de l'économie maritime pour xaatim pour signer benn accord maanaam dañoo dañoo ne euh, pour ñu développer aquaculture du Sénégal dañuy lëkkaloo ak dafa am kuréel yoo xam ne dañ ñu ciy gunge muy FONSIS pour affaire financement bi et cetera structuration bi muy bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent nga xam ne ñoom ñoo yore ñoom la président dénk saytu projet plan Sénégal émergent yi parce que aquaculture dafa bokk ci projet Séné plan Sénégal émergent yi y également directeur office de lak et do parce que dañu soxla suuf bu bëri pour def aquaculture te OLAC ñoom dañu yore domaine bu ñuy wax le Njaayel nga xam ne vraiment war nañ fa mën a def yarum jën ndaxte ndox baa ngi fa lépp a ngi fa léegi ci loolu nag ñu ngi ko tàmbalee 2017 li taxoon ñu tàmbali ko nag dañu ne aquaculture maam ñu ngi def ay affaires yu ndaw ndawaan mais du tax ñu am lu ñu xayma ci jën lu ñu bëgg a yokk ci jën parce que xam ngeen ne jën léegi euh, population bi day yokk te géej gi tamit am na fu mu mën a yem léegi état bi ne dañuy développer yarum jën pour développer yarum jën am nañ fi ay tool yu ndaw ndawaan waaye dañ ne loolu du tax ñu atteindre suñu objectif donc il faut que état bi ànd ak privé bi pour que privé bi mën a dugg ñu mën ko def benn un vrai business maanaam ñu mën a am yarum jën bu am doole parce que ñu ngi bëgg am cinquante mille tonnes maanaam juróom fukki junni tonnes la ñu bëgg euh, fii ak deux mille vingt trois soo jege na gaa mais foofu loolu la PSE bi santaane woon mais amaguñ ko ndaxte dafa am li nga xam ne dañ ko war a régler muy lan muy aliment te aliment boobu dañ ne woon pour ñu régler ko il faut ñuy defar aliment gis demande boo xam ne mën na tax ñu dugal ci xaalis ci loolu la ñu waxtaan ak FONSIS waxtaan ak BOS après ñu ne léegi nañu créer ferme bi ferme bi nag dafa war a pro dafa war a am capacité fukki junni tonne buñ ko defee ñiy def aliment dinañ ci gis seen bopp ba dugal ci xaalis waaye ñiy def aliment buñ ko defee tam du yem ci ferme bi day tax képp ku bëgg def aquaculture Sénégal di nga am foo jëndee aliment te aliment bi njëg bi dina wàññeeku parce que léegi nit yi dañ koy jaayee ay mille francs alors que warul passé 300 cent ak suñu jën yi sinon boo boo ko defee doo ci génn léegi bés bu ñu amee usine boobu dinañ mën a développer aquaculture nuñ ko bëggee projet bi tey nag ñu ngi bëgg a démarrer ci at bi ak déwén projet boo xam ne dañuy tax ñu am ñaari ñaari deux cinq 2500 ñaari junni ak euh, juróomi téeméeri tonne loolu la ñu xayma ci lu ñu signé tey loolu démarrage la te te te loolu am na solo boo xam ne parce que tey depuis bu ñuy def yarum jën ci Sénégal ñu ngi tollu ay junni tonne kon tey ñu signé ne dañu bëgg a def ñaari junni ak juróomi téeméeri tonne loolu lu am doole la te loolu de comment démarrage la lu ñu xayma mooy d'ici Euh, projet bu dafa war a dem ba fukki junni ton di war a créer ay xëy yu bëri aussi donc loolu aussi wax nañ ko signaler donc di yaakaar ne à partir lu ñu signé tey ndax lu ñu taxoon projet bi commencé wul mooy lu ñu ci waroon dugal muy un milliard boo xam ne amaguñ ko woon mais ministre Alioune Ndoye ren bu ñu defee suñu budget def ñu ne jël leen 1 milliard ngeen def ko ci projet bi nga xam ne dafa soxal président ngeen mën ko dérouler ndax aquaculture bi mën a mën a mën a jóg moo tax tey vraiment ñu ciy kontaan di di remercier aussi ñu ñu bokkal liggéey bi